le mauvais système qui est là Ousmane ñëw présenté ñu benn livre boo xamante ni mooy la solution waaw malheureusement nag bon gars yi organisé nañ seen ay élections 2019 def lu leen neex ba gagné élection yi pour toogaat système am seen maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar. waaw donc loolu la daal sénégalais yi daf ci am ñoo xamante ni dañoo bëggul dëgg. waaw te xam nga dëgg dafa neex am na ñoo xam ne tamit bëgguñ réew mi dañoo nekk ci réew mi di gëmloo nit ñi ne ñoom réew mi lañu bëgg mais seen intérêt personnel rek moom moo leen tax a jóg mais dara taxu leen a jóg te sénégalais yi sonn nañ trop te ñëpp xam nañ ne sonn nañ loolu on a disconvient pas donc kon comment waxtaan bi dañ koy commencer parce que gis nañ euh, ki nga xam ne moom mooy système am seen def na ci benn direct tey ci suba donc moom dañ ko bëgg a jël. parce que moom it am na lu bëri loo xamante ni jot na ko ci xam daf ci ay gëstu waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom moo xew ci démb mooy Pape Alé Niang bi mu doon daw oto am na nag ñu koy tooñ di ko attaqué personnellement naan dafa mandé cest à donc ñun nag loolu vie privée la kuy mandi ñun suñu yoon nekku ci ak quoi mu neex nga mandi mais daal ñun loo mandi mandi mandi ah lu ñu intéressé daal mooy li Sénégal bokk taxawal nga défendre ko quoi di défendre Sénégalais c'est très important. sista maam maa ngi lay nuyu. waa Abdallah ziar. waaw euh, mbaa ngi ci jàmm. Euh, maa ngi ciy jàmm bu baax a baax a baax euh, maa ngi déglu sa introduction. waaw. kontaan aussi gis ne live yu bëri tey ils se sont mis à fond pour défendre Pape Alé Niang. Uh-huh. je pense que dina xam ne il est pas seul dans le combat. dëgg la euh, tey nag euh, comme li ngay wax rek euh, naan c' est pas c' est sa vie privée mais tey il faut que aussi ñu analyser. Mhm. Macky Sall lan moo tax ñu tëb a tëb rek jiñ ko naan sàngara. Mhm. parce que na xam ne Sénégal société sénégalaise ku ñu ne tey day naan. Mhm. bu subaa kenn du ko déglu dañ naan parolu sulaar la. loolu yàgg nañ ko fi dégg. Sénégal kan mooy attardé wu ci waxu sulaar personne. kon le fait que ñu accusé wuñu ko lenn lu dul dafay naan mm-hmm. tu ma bu dee jigéen dañ naan caga la parce que c'est des rumeurs yoo xam te ne une fois que ñu collé la étiquette boobu noonu dañuy braqué euh, euh, euh, ni ñu koy waxatee waxtaanu ñëpp ci yow mm-hmm. dañuy tax ba nit yi dañ lay mm-hmm. dañuy orienté nit yi sénégalais yi vers autre chose boo xamante ne tey ki kenn dootu lu déggati kan mooy dem di jënd ji livre Solar personne bu la nee diw Solar bi moo génnee livre est-ce que nit yi dañ dem di ko jiroo mais même bu nekkee Solar sax quand il fait ses émissions wala. xam euh, da ngay raisonner comme une personne mûre. waaw ma ne maam Sène man je raisonne. maam Sène je raisonne je me mets à la tête pourquoi ñu euh, ñëw accuser loolu. Mhm. Euh, Pape Alé pourquoi pas autre chose. waaw mais même su fekkee Solaar la laa la buy def buy def ay émission ya moom nekkul ne dafay màndi ci biir émission bi buy bind livre bi tamit di informer sénégalais yi di édifier sénégalais yi di leen conscientiser nekkul ne tamit euh, dafay nekk en état d'ivresse ñun lu ñu intéressé mooy xeex bi muy xeex pour les sénégalais. xam nga am na ñu ne naanu man je je je prends tout juste en considération ñu nekkoon ci place lu ñu wax. je considère pas Pape Alé Niang que koo xamante day naan sàngara wala sulaar la. Mhm. tu vois man je con considère parce que pour man dans ma tête lu tax jiñ ñu ko sulaar jiñ ñu ko sulaar ba mu génnee livre ñu jiñ ko sulaar man sa me fait un hic man foofu laay arrêté. Mhm. léegi pourquoi jiñu ñu ko autre chose ñu ñëw juñ jiñ ko sulaar parce que sulaar bu génnee livre kenn du ko lire. Macky il est méchant il est mauvais. Mm. tu comprends Macky day def en sorte que euh, nit ki da lay da lay da lay pousser au fin fond ba nga dem ba nga xamante ne yow kenn dootul day tax ba yow day def nit déchet daal. Mm-hmm. góor la mu a jël simbi ko taatu neen def ko déchet. Mm-hmm. Euh, tey euh, bu ñuy analyser il faut analyser réaction Macky Sall depuis dès le début ba bu ñu yegg see fii ñaata nit la accusé. Mm-hmm. ñaata nit la toroxal par des mauvaises accusations pour que nit yi bañ leen a seetaanati. dafay dénigrer gars yi quoi. da leen di dénigrer gis nga Assane Diouf Assane Diouf. waaw. y a beaucoup de gens xam nga même Assane Diouf bu tey bu may xeex tey Assane Diouf moo tax. Mhm. tu comprends. waaw Assane Diouf bi mu ñëwee bi mu wàccee Sénégal les gens moom ay nit yoo xam te ne dañoo jógee gouvernement bi li ñu ma wax kii duñ ko tëj. Mhm. dañ koy wàcc. mu def ba au moment opportun ñu jël ko tëj ko buñ ko toroxalee génnee ko après dootu safati kenn dootu ko toppati kenn dootu ko déglooti. Mhm. te boo xoolee processus boobu lañ def. dañ koy mettre en mal avec le peuple quoi. dañuy détruire mhm. dañuy détruire nit. que dina ku ñëw pour détruire la moo gën a bon ku jël paaka dangay rendi une bonne fois parce que bu la rendiwee nga dee on t'oublie. Mhm. mais bu la yàqee ba nga xam te ne kenn dootu la xoolat yi da ngay doon mbalit. waaw mu toog di loolu ku bon dëgg moo ko mën on a un gouvernement sadique méchant mhm. aigri mhm. tey waa APR maa ngi gis ñuy toog di kontaan di jubilé mais ñoom dama xam ne ne xam nga mbaam ay nit ñoo koy xeexal ak kamax ak fam ndax mbaam xamul ak am xamul yellefam mhm. mala amul benn mala bu jóg di xeex akam ak yellefam bu ko nit defulee moom du ko defal boppam donc il faut que ñu considérer waa waa léegi maam. Mhm. léegi lan moo tax ñoom képp koo xamante ni da ngay jóg pour euh, jéem a de seen euh, dérive yu ñuy def seen mauvaise gouvernance bi seen seen seen gouvernance bu salte beeg yooyu noonu léegi ñoom il te considère comme un ennemi quoi lan moo waral loolu. Euh, tu un ennemi parce que si tu veux ñoom dañu yegg stade ba nga xamante ne. dañu ñam dund bu neex. Mm-hmm. ils ont tellement volé te li ñuy dund bu neex ba ñuy dund tey yii nii dara jaralu leen ko yàq bu bu leen jaralee ñu rey nit continuer di dund dund bu neex dañ koy def. Mm-hmm. xam nga ñun tollooguñu fi ñu naan dañuy xeex jusqu'au bout pour mën a accéder ci dund bu neex. Mm-hmm. mais ñoom dañ ci toll ba pare ñu ne ñoom duñu deewati parce que dañu ñam tumuranke ba ñu dund ñun. Mm-hmm. Macky Sall euh, il avait du mal à payer son loyer. Mm-hmm. mu jékki-jékki tey mu ñëw am ay milliards mais kan mooy nangu am milliards ba pare dellu doonaam ndóol. Mm-hmm. am na ñoo xam ne bu ko doonee dañuy dof après. waaw mais de mais il est devenu milliardaire illicitement. ah. ma ne il est devenu milliardaire illicitement quoi. mais effectivement. moo tax muy lekk comme un illicite. waaw. léegi boo leen gisee li muy lekk ni ñuy lekkee rek seen waa kër loolu yëpp boo ko analyser bu doon tubaab yi dañuy dem yóbbu leen ci psychologue. waaw parce qu'ils ont peur de retrou de se retourner. Mhm. devant la misère. Mhm. tey ñoom ragal nañ ne bu ñu lekkulee tey suba warul ñu am lu ñu lekk. waaw. ils sont plus comme nous. tu vois. Mhm. tey Macky Sall bu leen ko xool comme ñun gouvernement Macky bu leen leen xool comme ñun. da leen jaral ñuy jël ay nit di leen recruter pour ñuy dem di saaga pour ñu protéger ñoom la ñu doon. Mm-hmm. te tey boo yegsee si pays européens yi boo déggee ñuy wax franc-maçonnerie loolu moo nekk franc-maçonnerie. Mm-hmm. c'est des groupes de personne yoo xam te ne dañu séquestré dëkk. Mm-hmm. xaalis beex yëpp ñoom ci ñoom lay tourné dañuy def le tout pour protéger protéger seen biir. moo tax si biir franc-maçonnerie boobu y a des gens qui sont dans l'opposition qui ne se lèveront jamais pour le Mm-hmm. parce que ñoom tamit seen intérêt la ñuy préserver. ñoom it ci système bi lañ bokk. ñoom du ñu amati dund bu neex bi. Mm-hmm. tey Pape Alé dafa nekk obstacle ci loolu ñoom mënuñu rey Pape Alé parce que buñ ko reyee ça va être trop flagrant. Mm-hmm. ce que qu'est-ce qu'il peut faire lui coller des motifs jusqu'à ce qu'il devient un marginal. waaye nag maam seen doguma la foofu mais Pape Alé Niang tamit il doit faire gaffe xam nga lu tax. mooy ne comme si introduction bi li ma wax rek nit ku lay ut jéem jéem jotu la dafay xool foo ko gën a jege mu jaare fa ñoom il cherche toujours des alibis pour mettre euh, les gens en prison quoi. lui il le mettra waaw léegi xam nga comme kon kon tey ku bind livre bu toll nii livre bu Pape Alé bind mu am succès mooy scandale au cœur de la République ba pare bi mu jógee Paris yàggul euh, samedi bi passé la ñëwoon Paris te gis nañ ne. Euh, waaw li mu indi woon yëpp jeex na léegi yooyu ñoom succès boobu livre bi am ba pare seen yu bon yi ñuy def gars yi di ko weer ak yooyu noonu yooyu da leen di métti moo tax Pape Alé tamit il doit faire attention parce que tamit booy xeex ak nguur da ngay moytu yenn yu ñu lay tuumaal yenn génn guddi yeeg yenn c'est-à-dire xam nga dangay ngay moytu daal. xam nga Abdallah. waaw waaw. Macky Macky Sall. Mhm. il en prison. pourquoi. comme du ko tëj prison xam nga lu muy def. waaw. il va le rendre marginal. daf koy jéem a marginaliser quoi. daf koy jéem a marginaliser. Mhm. ba mu mel ni Assane Diouf ba nga xamante ne fu mu toogati ah kenn du ko du ñëpp ay daw. ok. xam nga y' a plusieurs façons d'humilier quelqu'un Mmh. Donc, aller la humilier. Lui, il va chercher à se venger en l'humiliant. Et quand il va le rendre marginal, euh, jëlati en considération ce livre là. Mhm. parce que boobaa dañu naan kuy bind livre bi di jéem a joxe leçon moom euh, nekkul ni koo xamante ni royukaay la parce que c'est un ivrogne. voilà. ok. di nga tey euh, euh, c'est des vrais psychopathes di nga Macky Sall li muy def. Mhm. ils sont entourés de psychologues. ils sont li ñuy def dañ ko mën. façon conseil bu nekk la am quoi. def ko mën def ko mokkal mhm. parce que dafa nekk dafa am devant lui euh, quatre-vingt-dix pour cent de son peuple qui est trouillard dëgg la et qui se contente de leur misère mhm. dafa am terrain propice pour def lu ko neex mhm. tey nag comme li nga wax Pape Alé moo war a def attention waaw dafa war a moytu nag bu baax il faut qu'il fasse très très attention euh, parce que bu defulee attention Euh, tey Pape Alé Niang c'est un journaliste. Mhm. bu ñu ko tëjee duñ ko yàgg dañ ko bàyyi parce que opinion internationale va en parler dina am ay copains journalistes yoo xam te dañuy interpeller loolu du arrangé Macky Sall. Mhm. Macky Sall lu mu mun a def Pape Alé daal mooy mu marginaliser ko ba fu mu génn fu mu wootee kenn du dem. Mhm. c'est waaw léegi yow ci suba dañ la gis nga def benn live ngay euh, lancer appel à tous les euh, patriotes ak ñi nga xam ne ay combattants lañ les les les activistes quoi nga ne leen euh, il faut ñu dem ci buntu consulat bi pour taxaw jàppale pap Alé Niang ak yooyu est-ce que loolu yow foog nga ne jaroon na ko tamit quoi waaw. faut qu'on aille au toog ñi bi ah, Pape Alé Niang woote woon ci livre bu Sonko wootee ñu ñëw faut pas se battre mais est que jar na ko tamit est que est-ce que tamit maam loolu jar na ko parce que Pape Alé tamit euh, c'est un citoyen sénégalais ba pare nit la tamit euh, am na dafay am droit ci erreur maanaam l'erreur elle humaine. mën na def tamit erreur wala euh, donc police ñëw jël ko yóbbu ko pour def pour def seen liggéey pour entendre ko tamit loolu tamit. est-ce que jar na di joxe rendez-vous ci buntu consulat bi pour pour manifester wu te defaguñ ko dara. non déglu ma. waaw di nga tey on se bat mm-hmm. jour ñu ngi bafoué suñuy droits mm-hmm. du Pape Alé Niang kese moo nekk Sénégalais biir Sénégal y a Guy Marius Sagna il était le moment d'aller bloquer ji nga nit yi li ñuy woo ci salle ñuy nekk trois cent personnes trois cent personnes yooyu tey bu ñu génnoon consulat yu benn journée bu subaa Macky Sall xam ne diaspora bi jóg nañ mais Macky Sall yéen yàgg ngeen ko wan seen bopp waa diaspora bi yàgg nañ ko wan seen bopp c'est le monde waaw mais tour ngeen ko fi farine ba pare dem na États-Unis ñu sot ñu yuuxoo ko di ñi nekk ci salle bi waaw ñi nekk ci salle Pape Alé Niang boobu noonu ak hmm. ñi génn bis on n'a jamais eu ce monde-là pendant les manifestations mosuñu ko mhm. boo demee taxaw ci buntu euh, saal boobu noonu boo taxawoon nga def sondage. waaw nga ne kan moo mos a ñëw kan moo mos a ñëw nga gis le nombre de personnes. Mhm. la preuve avant même euh, avant même euh, dédicace su Pape Alé Niang mhm. def nañu manifestation pour Guy Marius Sagna y a pas eu beaucoup de nit yi jaral na dem jënd ji livre. c'est très bien man je suis pas contre il faut soutenir Pape Alé pour lire. mais bu fekkente ne ñun suñu xeex yëpp si jënd livre la toog ak toog ci saal ba njëkk xëy ñu neex que euh, affaire bi wàcc ci mbedd mi rek toujours loolu mooy stratégie bi est-ce que euh, c'est pas le moment de changer de stratégie tamit. au euh, Sénégal au niveau du Sénégal il faut qu'il change de même au niveau de la diaspora non au niveau de la diaspora. tu vois on peut faire que manifester tey ji nga tey bu fekkonte ne dem nañu niveau devant TF1. Euh, oui et qu'on est trois cent quatre cent forcé journalistes yi dañuy génn ils vont nous montrer la télé. Mhm. te boo gisee ils nous montrent pas c'est parce que bu ñu ñëwee ay vingtaine la ñu doon loolu tax kenn duñu faale parce que on n'a pas le nombre qu'il faut parce que ñenn ñi dañ toog seen kër ñenn ñi dañu doyloo seen misère. Mhm. tey il faut que ñu bu ñu naree jóg ñu jóg en masse bu ñu jógee en masse ñëpp nañu déglu algériens yi ñu ngi jóg en masse les gens les écoutent mais bu fekkee trois vingt ñooy toog c'est vrai que quand on a fariné ça a fait le mais après ça s'arrête là. ak États-Unis bi États-Unis ñoom Ousmane Tounkara ak Angleterre Binta euh, Binta Camara. xam nga lu ma lay wax y' avait ñaata Sénégalais ñoo nekk États-Unis. Hmm. jour ñaata nit ñoo génn. nga xam ne ne bu sénégalais yi nekk États-Unis yëpp génnoon taxaw foofu nekkoon ne bëggatuñ la Marième Faye Sall nam fit naan day ñëw di négocier. mais humiliation bi rek moo ci moo ciy compter tamit maam même bu nit ñi bëriwul. non non il faut man foo man c'est passé il faut être plus méchant que ça. Hmm. ba mu bëggee woon jël gouvernement bi dafa dem ambassade dañ ko bloqué jël chaîne chaîne bu boutique bi consulat. Hmm. dañ ko chaîne kenn du dugg kenn du génn. Laay Wade jógewu fi. jógee tey kan moo am fit ñaata nit ñooy génn pour dem chaîne dugg génn madame Macky mii nekk consulat bokkoon na ci ñeen ña demoon na recruter nervi bi ñu dem duggu génn euh, dem chaîne kenn duggu kenn du génn. Mhm. bloqué foofu yëpp def lu leen neex. tey bu ne ça marche pas c'est parce qu'il y a pas assez de monde qui sortent au niveau de la diaspora. Mhm. tey Sénégal dafa toll ci benn stratégie boo ko xamante ne ci France. bu dee dix personnes vingt personnes trente personnes ñu génn kenn duñu faale par rapport au nombre de Sénégalais qui vivent dans en France. ok tey ñi nekk ci live bi yëpp bu ñu génnoon. Mhm. ah suñu mbokk yëpp génn samay rakk génn samay mbokk yëpp génn Macky Sall day tiit parce que foofu kenn romb. waaye mais moom xam na ne mais moom xam na ne heure bu ñëwee dans la diaspora dafay am problème parce que récemment en Angleterre soxna Mbayang Camara na ko foofu te Mbayang moom kenn rek la laa la wax ma ne la mais humiliation bi tamit baax na ci parce que dafa dafa dafa perturber discours Macky Sall. elle a perturbé le discours du président de la République xam nga loolu tamit se honteux. c'est de l'humiliation ça. non xam nga humiliation bi. ñoom kan hmm. moo ko wane. Hmm. Euh, sénégalais yi suñu Facebook bi fa hmm. xamante ni le monde entier va Mm-hmm. parce que ki ñu nekkal nii ku ñu ko sekkal faalewul sénégalais yi mm-hmm. man je mise plus le le peuple sénégalais pour dire parce que le peuple sénégalais est séquestré mm-hmm. tey Sénégal lu ñu mën a def mooy ñoom ñëpp ñu dem jël seen compteur courant dem ran dem delloo def une semaine Dakar dans le noir mu nekk première capitale bu nekk une fois dans sa vie dans le noir ce sera la honte pour Macky Sall mais loolu sénégalais duñu def loolu maam sénégalais duñu def loolu mais dañoo bëgg xam nga xam nga xam nga ñun suñu ñun suñu xeex du ñu booloo nekk benn quoi maanaam sénégalais moom loo ko teg rek daf naan la yàlla baax na yàlla ñu yàlla may lu ñu koy fayee. Euh, xam nga Abdallah li ma la wax la. waaw s'ils ne veulent pas le faire. Mhm. ils vont rester kon nag dangay xam ne kon kon kon nag bu yàggee bu yàggee maam di nga xam ne problème bi ci sénégalais yi la. ñoo une bonne partie moom je j'ai pas dit le contraire moo tax raison pour laquelle ñu def ay live di leen sensibiliser. voilà ñoom ñoo neexu te jàppale te neexu ñoo sensibiliser. xam nga. waaw ñu bëri gis nañ seen bopp. Mm-hmm. mais xamuñu sax ne loolu buñ ko defoon dinañ ci génn. ok léegi maam. ñu nekk fii il faut sortir il faut aller bloquer. waaw léegi mm-hmm. léegi comme. Euh, benn yoon par mois on bloque. waaw léegi ma ni. Mm-hmm. comme Pape Alé Niang a été relâché. léegi yow ban appel ngay lancé da ngay continuer pour gars yi continuer di ko jàppale parce que instant bi euh, ils sont en train de ils sont en train de d'intimider Pape Alé Niang quoi donc yow da ngay continuer pour ñu gën a taxaw jàppale ko ci intimidation yooyu noonu wala euh, nan la ñuy def. Pape Alé Niang na. Mhm. c'est une victoire a parlé toute la journée mais nee naa la man di ma analyser ko peut-être mu changer de stratégie parce que Macky Sall daf déglu. Mhm. mais man li ma analyser il a envie. de le faire passer comme un clochard pour que personne ne l'écoute plus te loolu moo gën a garaaw dans la vie parce que loolu Pape Alé rek moo ko mën a xeex tu comprends. Mhm. moo gën a garaaw parce que loolu bu dalee Pape Alé ñaaw même liggéey du ko am. Mhm. kan mooy dem di recruter ku ñu naan euh, day naan sulaar la. mais loolu yàgg gaa gaa gaa yi APR yi moom yàgg nañ étiqueté Pape Alé loolu yàgg nañu ko ko waxal quoi xam nga ñoom. ma nga tey. waaw boo gisee c'est pas pour rien. Mhm. mu génnee livre am ñëw traité ko sulaar. Mm-hmm. yow tey koo xam te ne soulage la est-ce que dañ ko dem voté bu mu doon président de la république boo ko xamee. doo ko mm-hmm. def. Mm-hmm. do ko jël mu liggéeyal la. donc c'est à lui de faire très attention. voilà fa muy dugg fa muy génn. tu comprends man ni may gis ni je vais pas en boîte sama kër sama liggéeyukaay dem dugg ji du ma dem kër mbur parce que xam naa ni xeex bi ñuy xeex nii. waaw mais dafa am combat yoo xam ne boo ci nekkee sax da ngaa war a moytu quoi tu dois faire attention. attention à tout le monde ñëpp nag. voilà. Mhm. parce que xam nga yow Pape Alé Niang gis am na benn activiste bo xam te ne réew mi la bokk. Mhm. buntu këram la taxaw oto ñëw fiir ko tël ba pare daw. Mhm. tuuti mu dee. c'est des risque quoi. prisonniers ba ñu jox ñu ñun suñu àq su suñu yelleef ok tey il faut qu'on commence à bloquer man boobu je suis ferme dans mes propos bu ma kenn woo ci ay saal ne ma kaay signé wala kaay tàccu mhm. wutuma golo tu vois je veux qu'il des gens qui veulent se battre d'accord parce que ah. Macky a fait ça mhm. avant de prendre le pouvoir mhm. tu vois et ça a marché kon pourquoi pas ça va marcher pour nous ok waaw kon ñu ngi lay gërëm di la sant maam d'accord ça marche. voilà donc euh, maa ngi nuyu ñun merci beaucoup Mame Sène jërëjëf euh, ñuy remercier maam Sène bu baax a baax moom nag mu nekk euh, vraiment koo xam ne ci combat bi la nekk te yàgg na ci trop c'est batant battante quoi vraiment. donc kon ci affaire yi Pape Alé bi rek ci la ñuy des di ci waxtaan parce que Sénégal dafa doy waar tey jii dañoo am ak affaire un état bandit ay gars yoo xamante ni. bëgguñ ku leen wax dara dara dara dara lu leen métti wala seen yu ñaaw ñu nekkee koo xamante ni da ngay taxaw pour ko koo dissuader wala dara donc loolu soo su fekkee da nekk ci combat bi comme Pape Alé Niang nga xam ne temps yi dafa bindi livre boo xamante ni euh, vraiment yëngal na république bi quoi donc kooku il doit faire très attention conseil boobu rek laa koy jox nu mu gën a mën a moytoo rek naka moytu donc on va aller euh, voir notre ami et frère OTD Ousmane Tanor Dieng moom it euh, dafay def ay live ci OSR il a des idées très pertinentes donc euh, xaaral ñu dugal ko waxtaan ak moom moom it mu joxe xalaatam ci li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee tey Ousmane Tanor Dieng maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar sama waa ji OTD. waa OTD yow avant may commencé sax di waxtaan ak yow ci affaire Pape Alé Niang bi Ousmane Tanor Dieng yow Ousmane Tanor Dieng la tuddee wala tur dafa tombé rek. <laughs> dafa tombé rek dafa tombé rek. ah coïncidence la. <laughs> Ah, dafa tombé rek. <laughs> ah ok man de foogoon naa turandoo Ousmane Tanor Dieng nga ma ne waa turandoo Ousmane Tanor bi moom lu muy def ci xeex bi. loolu dafa tombé ok kon OTD tey lu ñuy waxtaanee moom mooy. Euh, Euh, euh, l' arrestation de Pape Alé parce que dafa am euh, benn accident bu mu defoon démb ci corniche bi gis nañ nag presse en ligne beeg ñëpp ku nekk yaa ngi wax am ñu wax ne dafa nekkoon en état d'ivresse xam nga ku nekk daal am na loo xamante ni yaa ngi am sax ñu bind ne Pape alena Niang a été déféré affaire yooyu mën na leen kon mu gaaw de koo xam ne dafa ko garde à vue 24 heures sax ñu déféré la quoi xam nga donc yow naka nga koy jàngate danga gis ne. intimidation la wala ñoom il cherche des alibis pour euh, le mettre en prison wala nu mu demee alo allo. allo oui. waaw nga sama question bi. si si dégg naa je t'entends bien. pour gis ak ma ko jàppee bu gàtt. waaw. mooy tous les Sénégalais. ah OTD nag dafa mel ni dafa am problème connexion de. xaaral ma wul tuuti ndax ñu mën la déglu bu baax. waaw fi nga nekk dafa amul dafa amul réseau quoi. waaw te nga def appel normal bi rek. waaw waaw normal waaw donc ñu ngi jéggalu bu baax a baax Ousmane euh, fu mu nekk dafa xaw am problème mu réseau tuuti mais xam naa dinañ jokkowaat ak moom euh, léegi nii donc affaire Pape Alé bi mu amee gis nañ ñu bëri ñoo xam dañ si profité parce que tamit attention ah yu bëri tey jii dañoo dem rangé wu derrière Macky Sall ñëpp xam nañ ne tey jii journaliste yu mel ni Pape Alé Niang bëreetul quoi ñi nga xam dañoo libre am indépendance ci lu ñuy def bëreetul ñu bëri tey jii jënd nañ leen ñu toog am na wax xam ci presse en ligne bi lañ nekk am ñoo xam ne dañoo nekk ci euh, ci média wu bi lu neex Macky Sall neex na leen te dañ leen di utiliser pour ñu joxe ay fausse information wala bu dara xewee ñuy aggraver affaire beeg yooyu ñun parce que gis nañ tey ñu bëri di wax naan waaw Pape Alé Niang était en état d'ivresse c'est un ivrogne di wax lu nekk quoi lu nekk tey wax nañ ko ko taxe nañ ko euh, de tous les noms d'oiseaux ba pare sax nee naa leen sax am na koo xam ne wax na ne Euh, Pape Alé Niang a été déféré <laughs> te xam nga Pape Alé moom wax dëgg yàlla jàpp nit mu ci guddi après déféré la ah lu muy am de bëriwul su fekkee dina am man nag xaw ma affaire yi droit bu baax donc kon OTD euh, ñu continuer tey nga àggali ci sama question bi ma ne ndax Pape Alé Niang gars yi dañ dañ koy dañu jéem a ut ay alibi pour jëm ko mettre en prison parce que moom euh, livre bi dafa dal mooy scandale au cœur de la République mm-hmm. waaw li ma jàngatee loolu moom mooy li ma la wax léegi. bi ma nuyoo ñëpp nag di di di rafetlu cette initiative bi nga xam ne def nga ko nii. waaw merci. effectivement c'est très important aujourd'hui merci ñëpp maanaam déployer les moyens qu'il faut pour éveiller une masse critique de jeunes africains. Mhm. pour ñu mën a changer tey suñu ay nekkin. dëgg la kon l'initiative d'abord elle est salutaire. Mhm, merci bu mu loolu maanaam man li ma ko jàngatee rek moom mooy li ma terminé woon sànq moom mooy en réalité aujourd'hui tey fi ñu tollu tous les sénégalais. Mhm. ils sont en liberté provisoire. Mhm. tey fa la ñu nekk. boo xoolee maanaam Pape Alé la ñu jël collé ko pour expliquer ni def na li def na laa je ne veux pas entrer dans sa vie privée parce que personnellement par essence et par principe ça ne m'intéresse pas trop. dëgg la et naa ni loolu ñu koy waxal defu ko gis nga gis nga Abdallah dañuy ñëw. Mm-hmm. je te donne un exemple bien déterminé et très concret gis Baba Aydara jamono yu ne passé le journaliste Baba la euh, journaliste les événements qui se sont produits par rapport au, à l'affaire de Petrotim, euh, là où euh, le frère de Macky, euh, de Macky Sall, Alioune Sall, a été, été euh, mis en cause. Mm-hmm. bi gars yi naan Alioune dafa sàcc suñu 600000 ñu génneel ko fi waaye Alioune Sall jox ñu suñu 400000 Baba Aïdara dans cette logique là. Mm-hmm. il nous donnait des informations vraiment utiles et essentielles à la fois. Mm-hmm. boo xoolee tey déggatoo Baba Aïdara. xaw ma fan la ñu jaar ak moom. mais bi ma ko mujjee dégg muy wax Ahmed Aïdara la woo seen émission boobu noonu ne ko gars yi dañoo dem ci sama ordinateur bopp bi pour te montrer que ni en soi Baba Aïdara deful dara. Mm-hmm. c'est un Africain un Sénégalais qui était soucieux de la bonne gouvernance mm-hmm. et de la gestion en réalité vertueuse de nos ressources. Mm-hmm. loolu moom moo taxoon il s'était donné cette mission sacrée d'informer les gens. afin qu'ils puissent comprendre. tout afin que chaque Sénégalais mën a comprendre c'est quoi ses, ses devoirs et comment il doit prendre sa responsabilité par rapport au, au vol et au pillage et à la prévarication de nos ressources loolu moom moo taxoon Babacar Baba Aïdara il s'était donné cette mission mais gars yi xool nañ nu ñu defee ba noppiloo ko yow da nga gis da nga gis ne noppeem bii kon gars ñoom dafa am fu ñu jaar ak moom non maanaam maanaam waxuma la noppeem bi que ni waa gars yi ñoom ñoo ko jox xaalis wala ñoom ñoo non loolu dafa am benn poñ fu ñu ko jàpp quoi foo xamante ni maanaam mënatu la wax quoi. man man je peux xam nga xam nga bi ma ko déggee ci ay kàddoom rek laay wax bi mu ñëwee bi mu doon wax bi ma ko mujjee dégg mu wax. waaw daf ne gars yi dañoo dem ci ordinateur boppam bi. waaw te loolu maanaam li muy tekki dafa bëri trop. gis nga gis nga tey boo jéggee ci loolu. dañ ko piraté quoi nga bëgg a wax. boo xoolee tey. Mm-hmm. même ay Aïdara bi dafa sori. boo xoolee tey mooy mooy mooy kilifa googu tey pa boobu tey xaw ma ma Matar Gueye la. waaw te muy xeex ay affaire homosexualité di xeex ay affaire di xeex ay affaire n'est-ce pas. ak doomam beeg yooyu noonu waaw. effectivement gis nga tey ni mu demee. maanaam doomam bi def na wala defut ñun ñëpp ay nit lañ. Mhm. te tey dañoo l'Afrique ou bien le Sénégal est à la croisée des chemins. oui. Mame Matar le combat qu'il mène il est un combat digne. d'être porté par un Sénégalais ou bien par, par une personne en fait qui est consciente que la culture africaine et la culture sénégalaise par excellence, elle est menacée par des facteurs exogènes. Mhm. loolu moom moo tax tey muy jóg di xeex maanaam ñun maanaam famille li ñuy def doomam li muy def loolu lépp war nañ ko mën a jigi tout simplement pour se centrer sur l'essence de son message moom mooy lan tey notre culture elle est menacée gis nga dans la vie lorsque tout s'en va c'est la culture qui doit demeurer. Or, en réalité, l'Afrique jusqu'à jusqu'au 21e siècle, il a des pays africains qui arrivent à, garder leur culture. Mm-hmm. moo tax na tey am na lenn loo xam ne tey ku nekk chacun est libre de vivre sa vie. Mm-hmm. noo ko déggee mais dans l'espace public on doit respecter la moralité commune. waaw léegi ñëwaatal ci ci Baba Aïdara bi tuuti nga jéem a éclairer foofu euh, gars yi waaw. waaw léegi ci Baba Aïdara xam nga bi ma ko mujjee ma ne bi ma ko mujjee dégg mu woote ci Ahmed Aïdara daf ne gars yi dañoo ñëw ci ordinateur u boppam bi. waaw. te ñëw ci ordinateur u boppam bi man déggewu ma ko nenn ludul. waaw. mu ngi mëne benn combat. Mm-hmm. gars yi lu ñu mënti def ba yàqu ko dañ koy def moom mooy bu ñuy dem këram xool li muy def. bu ñuy mm-hmm. def lii bu ñuy defal lee luñ ko xamal rek dinañ téye dossier boobu wala ñu def loo xam ne dinañ ne ko yow boo noppi wala lii. dinañ la def lii dinañ la def lii dinañ la def lii moom moo tax moo tax affaire Pape Alé Niang bi. Mhm. faut que les gens soient vigilants. moo tax tey ay bu ñu nekkee fii sax naan Pape Alé na moytoo na lim ce n'est pas man personnellement je ma dis que ni ce n'est pas le discours approprié. Mhm. Pape Alé amut lu muy moytu. ah lu tax pour lu tax nga ne amut lu muy moytu pourquoi. xam nga lan moom moo tax. waaw maanaam en soi par exemple ni ñuy waxee moytu bi Pape Alé c'est un gars qui est hyper li gars yi di wax yëpp ak li ñuy xalaat. ak hmm. ñun ñi toog tey sax maanaam di ko analyser daanaka am na ay ñoo xam ne ñoom lay àndal wala moom ci boppam rek xam na bu baax la responsabilité du combat qu'il mène. bàyyi hmm. na xel bu baax lii ñëpp di wax. Hmm. yaa ngi dégg. kon moom maanaam foofu noonu man je me dis que ni il est sur ses sur ses sur parce que xam na combat bi muy mëne mais tey ñi nga xam ne ñoom la ko seqal. Madame, c'est ça en réalité. Madame, la manière dont nous faisons la politique dans nos pays, elle est malsaine. C'est sale. léegi nag loolu la nag moom mooy tey. waa ji ak man. Mhm. nu ma mën a def ba yàq ko rek dinaa ko def ba yàq ko. waaw mais ñoom toujours noonu la ñuy xeexee ak ñëpp waa waa APR kañ xam nañ ne seen xeex yëpp loolu la ñoom. waa léegi loolu nag gis nga gis gis nga tey. gis mhm. maanaam cette conception cette façon de faire de la politique. cette mhm. manière de. sa feuille de route et son programme quel qu'elle soit dans notre pays c'est ça qu'on doit défaire loolu la ñu mais Ousmane Sonko euh, Ousmane Sonko a été a été toujours victime de ça ah. waaw mais maanaam gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga Ousmane sonk waaw maanaam xam nga xam nga Latif Coulibaly rey nañ ko. Mhm. yaa ngi dégg. ay ñeneen ak ñeneen taxawoon nañ fi ne duñu duñu duñu transhumé wala duñu def lii wala duñu def laa. ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye ñëw ci sa bureau xool <laughs> ne la xoola tegal la benn dossier ne la tax ne hmm. noppi wala ñu génn wax liñ la xamal yàq sa àdduna yàq sa lépp. wala tu seras wala ñu yóbbu dossier bi ci procureur. <laughs> waaw <laughs> effectivement maanaam yóbbu dossier bi ci procureur sax parfois moom mooy parfois li mais uh-huh. parfois dañuy am fenn foo xam ne buñ fa jaaree dañ lay yàq. Uh-huh. te tey mooy yow muy man muy lépp maanaam en fait nous appartenons à la société plus qu'elle plus qu'elle nous appartient maanaam société bi ñu bokk. Uh-huh. société bi daf ñuy tënk tey am na lenn loo xam ne yow xalaat ko. parce que en réalité ci tu n'es qu'une infime partie de la société. surtout ma sa kër tey sa am na benn responsabilité boo xam ne da nga ko fa gàddu. nest pas. yaa ngi may dégg. maa ngi dégg bu baax. noonu la demee tey bu nee la sa yaay lii wala sa papa lii wala sa mag lii wala sa mag lee da nga naan non naa def naa ko parce que en réalité c' est toi c' est toi euh, qui a qui a ton famille sur ton derrière ton dos. da nga ah. naan naa prendre loolu lépp en considération loolu tënkat jaratu ko quoi parce que Afrique maanaam dañoo toll foofu te loolu tey. Mhm. fa lañ toll moom moo tax tey tous tous les jeunes je me dis. Mhm. tous les jeunes confondus tey ñoom war a jóg taxaw maanaam changer cette manière de faire en réalité et de, se séparer définitivement, mais de façon radicale à, avec ces systèmes-là. Parce que système bi loolu système yii fi nekk loolu la. waa léegi Ousmane Tanor Dieng Ousmane Tanor Dieng. bu ñu mënee rey Pape Alé nañ ko rey bu ñu ko mënee tuumaal nañ ko tuumaal bu ñu ko mënee takkal nañ ko takkal tous les moyens sont bons pour se faire une bonne situation. waa OTD loolu la quoi nit ki sax mais man naa tekki. naa rey nit ki mais naa am position bu baax naa rey nit ki mais naa am place bu baax wala naa ko tuumaan wala naa ko def lii wala naa ko def lee léegi nag les gens les hmm. gens et maintenant c'est c'est c'est aux Sénégalais de se défaire de leurs œillères maanaam ñu ñu ñu jéggi barrière yooyu pour mën a comprendre et prendre corporer et intérioriser le message de Pape Alé à sa juste valeur et à, à, à son juste titre. C'est ça qui est important aujourd'hui, à mon sens. Mandlolo Ladiapo Pape Alé, c'est un patriote intrépide. Mm -hmm. Il est en train d'abattre un travail colossal. qu'il soit un ivrogne, qu'il soit euh, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais en conscience, que Pape Allais, non mais il est mille fois meilleur que ces gens qui sont en train de le calomnier. Moi, j'ai la certitude à ce mm. niveau. Je ne me pose même pas de questions à ce niveau. Et je sais que les papes Allais, c'est une personne intègre, c'est une personne digne, c'est une personne bien conseillée, mais en même temps, c'est une personne qui connaît aujourd'hui euh, l'importance qu'il joue au, au, au, milieu journalistique sénégalais, qui, qui n'est pas quand même euh, un, un, un, des quoi, un des, des, des par rapport au, à qui l'idée de quoi, tu vois. waaw léegi léegi li nga doon wax sànq ci jeunesse bi dañoo war a am une jeunesse consciente boo xamante ni dañuy jóg jàkkaarloo ak euh, ce mauvais système mais léegi comment on peut combattre ce mauvais système la parce que gis nañ ne tey jii gars yi nga xam ne ñoom ñoo taxaw ci xeex bi ay live la ñuy def bu ñu ootee manifestation gis nga ne manifestation yi nga xam ne dañ ko autoriser rek ci les jeunesse bi di di ñemee génn te mobilisation yi toujours dafay des léegi lan moo tax rapport de force toujours mënul am quoi suñu diggante ak euh, ces mauvais dirigeants la am na benn benn benn benn oui c'est un universitaire. daf doon wax maanaam ci droit de vote la koy waxee mais dama lay expliquer rek pour andi la ko mu ne il n'y a pas de droit de vote légitime lorsque l'individu n'aura pas acquis une capacité de discernement effective. Mhm. te tey problème boobu lañu ñu am en Afrique maanaam jeunesse bi suñu population la majorité xam nga bu ñuy qualifié moom moo tax Macron bi mu ñëwee mu ne non Afrique li ñuy jur dafa bëri maanaam ñun en réalité nos nos peuples sont constitués majoritairement de jeunes. Mm-hmm. de ce fait jeune bi jeunesse bi bu bu amul bu la majorité des jeunes bu ñu yeewul rek leen problème dafay am. Mm-hmm. te tey ci loolu la ñuy dund. moom mm-hmm. moo tax nag très souvent te tey lii yéen nit àdduna yàlla moo def loolu tey am na loo xam ne boo jàngul wala nga bàyyi xel dëgg loo mën di jàng nag bu mooy wax jàng nekkul jàng école la tax nekkul école lu tubaab bi. tey boo xoolee tey suñu dëkk yi cinquante surtout nag au Sénégal jusqu'à aujourd'hui il y a cinquante quatre pour cent de la population. qui ne sait ni lire ni écrire, que ça soit en arabe ou en français. Loolu c'est un obstacle épistémologique. Ah. boo xam ne dafay ñëw taxaw. Mm-hmm. nit ñi mënut a distinguer le vrai du faux, la bonne graine de l'ivraie. parce que mënoo too taxaw xam dëgg wax kàddu bi nga xam ne dafa nekk dëgg wala kàddu bi nga xam ne nekkul dëgg. Mm-hmm. donc tey ñun à notre niveau c'est le travail que nous devons mener mais effectivement de façon très ardue pour que ñi nga xam ne tey moo tax ñi nga xam ne ils n'ont pas compris man parce que ah les les systèmes les systèmes qui ont été là depuis les indépendances, ils ont tout fait pour maintenir les gens dans l'obscurantisme. Mhm. C'est l'endam gi. Effectivement, dañoo yàgg maintenir nit ñi ci l'obscurantisme. dañoo yàgg maintenir ni ñi ci insouciance. dañoo yàgg maintenir nit ñi ci passivité. dañoo yàgg maintenir ni ñi ci inoffensivité. maanaam dañ lay rey sax yow wala ngay gis nit day sàcc. mais li li nga xam ne Pape Alé li te doon l'exemple man fii lii la livre de Pape Alé. li nga xam ne moom mooy yëkkati jeunes yi nga xam ne ñoom ñoo Algérie le mouvement Irak. di ko yëkkati jeunes yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Liban di ko yëkkati woon fan yi les jeunes yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Hong Kong mais en réalité c'est pas en d'autres termes ce que Pape Alé a dans son livre par rapport à scandale. Mhm. des milliards et des milliards de nos avoirs ci Sénégal nit génn wax ko mu leer na ne dañ koo sàcc te génn jugub kenn waxu ci ñëpp toog seen kër mais loolu noonu ñàkk xam moo koy def. ba pare le voleur a été récompensé par euh, a été récompensé par le président de la république ah. effectivement gis nga loolu noonu. waaw gis nga loolu noonu xam nga c'est un fait. Hmm. loolu maanaam ñàkk xam moo koy def parce que saa su nekk rek. Hmm. saa su nekk ñun en Afrique nous avons euh, la mentalité nous avons cette mentalité d'être souvent assistés par nos hommes politiques. qui mhm. par ailleurs vont, nous vole notre argent et revient en retour pour filer le bon samaritain. Mhm. yow dañuy ñëw jox la deux mille cinq cent te deux mille cinq cent boobu sa xaalis la dañoo nekk ci benn cercle vicieux boo xam ne ñiy ñàkk ñoom ñooy gën di ñàkk ñiy am di gën di am te yow mi ñàkk boo deful nang ils feront tout lépp la ñuy def pour maintenir la ci sa ñàkk boobu ba pare nag dañ lay maintenir ci ñàkk ba pare ne la non non yow tu n'as pas droit à la connaissance tu mhm. n'as pas droit au savoir tu n'as pas en réalité les aptitudes nécessaires pour pouvoir changer tes conditions de vie tey Afrique dañoo toll foofu moom moo tax tey jeunes yi moi je lance un appel sur le ci jeunes yëpp ñu bàyyi nga gis ni Sénégal Sénégal je vous dis. Mm-hmm. chaque année chaque année da ne en réalité il y a trois cent mille nouveaux jeunes demandeurs d'emploi. Mm-hmm. trois cent mille nouveaux jeunes demandeurs d'emploi l'État ne parvient qu'à satisfaire trois mille trois mille trois mille demandes d'emploi l'État satisfaire. par ailleurs à côté donc il y a deux cent soixante dix mille yoo xam ne du ñu am lu ñu liggéey. Mhm. gis nga écart bi ah. Mhm. gis naa. allo. maa ngi lay dégg je t'entends bien. oui. trois cent mille nouveaux jeunes demandeurs d'emploi état bi trente euh, trois mille nouveaux trois mille emplois la leen di offrir léegi dañuy am dabu mille euh, emplois. non emploi des jeunes bi moom toujours dañ ciy échec moom toujours day am échec. ñii hmm. ñooy génn nekk agresseur ñii ñooy génn dem rëbës ñii ñooy génn di di doon les marrons du feu ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite parce que ñun en réalité nous les pauvres nous qui sommes délaissés par ces systèmes qui ont toujours été là mmh. en réalité nous ne sommes pas considérés comme des humains ils font tout pour nous déshumaniser moom moo tax tout ce qui souffre en Afrique ñi nga xam ne au Sénégal particulièrement ñi nga xam ne dañuy souffrir ñi nga xam ne ñooy subir en réalité cette cette façon calamiteuse de faire de la politique ils doivent s'unir nit ñi dañoo war a yeewu quelque de quelque bord que nous puissions que nous que nous ñu mën ci bokk boor bu ñu mën ci bokk nga bokk ci feneen nga bokk ci feneen nga bokk ci feneen quelle que soit ton obédience politique nga xam ne lii ñuy wax c'est simplement pour uniquement bien le bien du Sénégalais le bien du Sénégal loolu rek moom moo tax nit ñi di wax c'est ça en am na fenn foo xam ne nit bu fa tollee day dindi bokkam teg ko fële xam ne lii ñuy wax maanaam li ciy dëkk ñu jël ko jëriñoo ko waa léegi mais tey bu ku nekk nag bu nekkee da ngaa toog fi nga toog. Mhm. boo gisee nit ñi di wax rek nga ne non nañu saaganteeg ñoom nañu defanteeg lii ñoom nañu defanteeg lii ñoom nañu defanteeg non mais loolu ce n'est pas ce n'est pas de cette manière. combat bi fan la euh, Ousmane Tanor Dieng combat bi fan la qu'est-ce qu'on doit faire pour combattre vraiment ce système la mais man man man man man système bi gis nga gis gis nga gis nga man. gis nga mhm. xam nga lan laa jàpp. Mhm. gis nga islam. que ça soit islam que ça soit christianisme xeex bi ñuy xeex yëpp moom moo tax Seydina Mohamed daf ko yàgg def mu ne moom maanaam pilier wam yi nga xam ne moom daf ko tegoon yëpp moom mooy xeex ñàkk ak réer te Maam Moussa Ka mu ngi koy waay mu ne Maam Moussa Ka mu ne. Mhm. maanaam euh, dañoo war xeex ba mu daj ba ba sonn pour maanaam jëlee ñàkk ak moom moo tax mu doon wax naan ñàkk moom moo bon ci waaju baax. Mhm. baaxul ci góor maa ngi lay dégg ñàkk baaxul ci waaju baax waaw. Mame Moussa loolu la doon wax mu ne ñàkk moom moo bon ci waaju baax. mais ñàkk bi kan moo ko yóbbee. c' est nos dirigeants parce que waaw ñoom ñooy ñoom ñooy accéder au pouvoir di sàcc xaalis bi. léegi nag noonu la fa demee nag moom moo tax tey. waaw nit ñi ci loolu. moom moo tax yow Abdallah yow mi nga xam ne yow yaa toog ci des portées qui te dit des responsabilités. Mhm. et des devoirs envers ma nation je dois me porter volontaire pour changer ce système nit ñi xam ne yow mii wax tey. Mhm. nekkul da ngay wax pour dénigrer diw nekkul da ngay wax pour dénigrer diw. non je parle en tant que en en tant que patriote quoi. effectivement da wax rek pour yéede. Mhm. maanaam tey gis nga moom moo tax nit ñi souvent les gens boo boo automatiquement dañ naan non il parle de cette manière parce que il est avec Ousmane Sonko non non non non non pas forcément. ñu bëri loolu lañ leen di wax waaw. Mhm. gis nga moom moo tax nit ñi tey dañoo war a jël loolu noonu ñu comprendre ko nekkul Abdallah nii lay waxee rek il est forcément avec Ousmane Sonko wala il est forcément avec Diouf wala il est forcément affilié ce discours ak un leader politique yow ce discours ku ko dégg ba mu jeex day xam ne maanaam Sénégal rek moom moo la ñor. waaw ma ne Ousmane Tanor est-ce que les Sénégalais laa la wax nii la plupart des Sénégalais est-ce qu'ils son prêts pour combattre vraiment ce système pour que ñu débarrasser wu avec sa mauvais système boo xamante ni moom la ñu nekkee depuis 1960 ba léegi. gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga man. waaw man li ma gëm. Mm-hmm. sama gëm-gëm fi mu toll. Mm-hmm. gis nga ñun ñi nga xam ne dañoo yeew. Mm-hmm. suñu nekkoon majorité. Mhm. système yi dina fi jóg. mais malheureusement on est minoritaire ah. effectivement et malheureusement minoritaire la. waaw léegi nag xam nga le travail euh, le gros du travail doit s'effectuer à quel niveau. à quel niveau. moom mooy bi nga xam ne nit ñi dañ ko war a yeete gis nga daanoo langue nationale. mooy conscientisation bi quoi ak. Euh, c'est ça. c'est ça xool loolu rek moom moo mën a. gis nga mhm. tey nit ci lu mu xamul. ok maa lay dégg waaw. nit ki mënoo ko woo ci lu mu xamul nit ki mënoo ko woo ci lu mu li mu ràññewu nit ki mënoo ko woo ci lu mu gëmul gis nga gars yi ñi nga xam ni ñëpp bokkuñu ci combat bi c'est parce que ils ne savent pas distinguer xamaguñu sonn nañ trop mais maanaam ils n'ont pas encore entendu le vrai discours maanaam ni ñi dañ leen fekk fi ñu nekk wax ak ñoom. mais loolu ça demande des moyens Ousmane Tanor Dieng. Sénégal jour bu nekk plus de quatre femmes dañuy dee. ci ñàkk maanaam soin. mais sensibilisation boobu noonu sa demande des soo nekkul ci état bi foo jëlee moyens yooyu. waa léegi gis nga tey boo nekkul ci non pouvoir moom. pouvoir bi ñoom ñoo am moyen te seen moyens yi ni ñu koy utiliser baaxul. waa léegi pouvoir bi pouvoir bi. waaw. gis nga système bii fi nekk. ñoom mënuñoo xalaat ci ñoom changement loolu c'est un fait d'abord. Mhm. kon tey moom moo tax gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga dans d'autres pays où il y a eu des révolutions. oui. xaaruñu dara ci pouvoir. ils mhm. ont compris cela très tôt. Mhm. moom moo tax par exemple je te donne l' exemple de la révolution de la révolution burkinabé. Mhm. en 2016. la révolution burkinabé en 1983 Thomas Sankara bi mu accédé au pouvoir. ah non dama tegoon bu mujj bi ngay wax bi ñuy saché sa waay euh, nu mu tuddati sax Compaoré bu 83 ba quoi ngay wax. Euh, ok d'accord. pour, euh, pour une personne qui a fait trois ans au pouvoir et les réalisations qu'il a effectuées, c'était vraiment énorme en fait. Mhm. tey Thomas Sankara bi mu ñëw au pouvoir dafa fekkoon maanaam taux d'alphabétisation bi wàcc wàcc wàcc ba ba kenn xamul lu muy juróol. Mhm. mu jaayante ba tey maanaam taux d'alphabétisation bi ñi nga xam ne dañooy jàng école maanaam dem ci biir jàng bi commencé suqaliku nit ñi commencé yeewu. maanaam mhm. lenn loo xam ne daf koy mu leen loo xam ne en même temps aussi daf koy changer loolu moom mooy la vraie la vraie révolution loolu moom mooy le vrai changement bi nga xam ne dañ ko war a am ci suñu dëkk yi ah ah. te tey je te dis par rapport ak livre Pape Ali bii nii tu mm-hmm. verras man je vais revenir euh, de façon plus large mm-hmm. dañuy gis ne tout simplement nit ñi maanaam dañoo ñàkk xam rek moom moo tax ni seetaan lii nii yëpp di am mais nit ñi bu ñu demoon ba xam les moyens nag xaw ma nan la ñuy def tey man moom très très sincèrement xaw ma nan la ñuy def ba am ko mais tey ku nekk ci sa wàll ku nekk war naa xam ne maanaam am nga benn benn devoir boo xam ne da ko am envers ta nation. non mais mais Ousmane Tanor Dieng je ne coupe pas mais gis nga le livre de Pape Alé Niang. instant bi nii euh, mënul mënul euh, def dara xam nga lu tax. Mm-hmm. loolu à l'avenir lay mën a nekk pour conscientiser nit ñi sensibiliser leen wan leen ne leen carrément depuis bi ñu amee indépendance ba léegi. Mm-hmm. ñi ñuy fal toujours partage du gâteau la ñuy def nguur gi dañuy séddoo Sénégal da ngay gis nit koo xamante ni sàcc la sax président bi récompensé ko jëlee ko ci poste directeur général def ko ministre de l'enseignement général l'enseignement supérieur kon autant pour moi donc loolu moo tax ma ne livre bi instant bii nii il faut ñi nga xam ne ñoom ñoo jàng ñoom nañ ko liir ba pare ñu jëm a fexe conscientiser peuple bi ñi nga xamante ni ñoom ay analphabète lañ ak ñi nga xamante ni yeewooguñ xamuñ ce qui se passe xamuñ li xew pour bu ëllëgee bu ñuy élire ñu tànn des hommes de valeur parce que xam nga tey affaire bi c'est une chaîne quoi chaîne la yaa ngi comprendre wala mën naa wax ne c'est un train locomotive bi mooy président de la république moom mooy yóbbaale wagon yi ñuy dem léegi il va falloir choisir un homme de valeur plein de vertu kooku soo ko tànnee moom buy tànn ñu muy àndal ay nit ñu baax la ñuy nekk parce que ku bon du ànd ak euh, ñu baax ku baax tamit ñu ñu ñu baax rek lay bëgg a lay bëgg a àndal li olof di wax ne dërëm ak dërëm ñoom ñaar ñoo ñoo mën a ànd tey jii suñuy tànn affaire bi ci président bi la foofu la ñuy commencé il faut ñu tànn nit ku baax nit ku nit ku yiw nit ku ragal yàlla koo xamante ni moom day jël ses propres intérêts sànni fële jiital l'intérêt du pays mooy comme slogan yu ñu doon naxee la patrie avant le parti mm-hmm. il nous faut un homme boo xamante dafay ñëw jiital patrie bi patrie bi jaral ko lu nekk mm-hmm. mais yow des gens yoo xamante ni dañuy ñëw xam nga il s'enrichit illicitement au dos des sénégalais mm-hmm. di la romb ak xolo scandale bi am tey ci oto yi tey ba président bi fëgg table bi ne dootul jëndati oto xoolal détournement yi ñu fi tudd yëpp ay kat scandalu 94 milliards yi ba léegi tey jii fu muy mujjee mooy dañ koy classé cent suite affaire Aline Sall bi ñu ngi def le tout ba bëgg a classé sans suite affaire Mame Mbaye bi ñu ngi ko bëgg def le tout ba classé ko sans suite nga xam du mujj fenn léegi milliards yooyu yëpp nga xam ne Sénégal li ñu si waroon a jëriñu am ci ay opito dignes de son nom un bon plateau médical abri provisoire ñu tàggook moom. am ci yeneen nag yeneen ak yeneen yoo xamante ni ñun on en a besoin pour l'instant mhm. xaalis boobu yëpp ñun dañ koy perte quoi ñun ñun sénégalais yi te instant bii nii damaa jàpp ne ñun manuñ ci dara parce que waa ji njëkk nañ ko jox mandat wu sept ans mu toog mhm. ndax ñu na cinq ans lay def il nous a mhm. daf ñu trompe léegi ñu demaat ba mu yàgg mu def sept ans bàyyi ne def na deful dafa waxoon ne deful sept ans cinq ans lay def lay def di dox si suñu moyen pour pour pour pour ñu am confiance ci moom quoi ñu jàpp ne moom il est de bonne fois te il n'est pas de bonne foi mu nax ñu daf sept ans ba pare élection 2019 yi mu organiser ko à sa manière yaa ngi comprendre ak ministre de l'intérieur am organiser ko ñu mu ko neex écarter ñu ko neex pour mën a gagner premier au premier tour kon fu mu nekk nii c'est trop tard livre Pape Alé Niang bi moom njëriñ bu muy am mooy pour après Macky Sall te su fekkee sax moom du tenter pour am troisième mandat parce que instant bi acte yu muy posé yëpp loolu lay nuru quoi man loolu laa gis mhm. waaw. man d'accord naa ak yow la ligne. waaw. nga tey. dans tous les pays où il y a eu un véritable changement. Mhm. c'est le peuple qui a pris ses responsabilités. Mhm. dès lors qu'on parle de peuple. Mm-hmm. On ne parle plus d'individualité. Mm-hmm. Dès lors qu'on parle de peuple, mm-hmm. on ne parle plus d'homme providentiel. En Afrique, personnellement, en on est en je ne pense plus, je ne crois plus à un homme providentiel en Afrique. Tu sais pourquoi je te dis ça En 2012, il n'y a pas ce que Macky nous a promis il nous a tout promis il nous a promis monts et merveilles. lépp la ñu promettre tey il nous a promis la croix et la bannière. il nous a tout promis. il changement. avec des slogans moom moo tax Pape il a un arsenal contre Macky Sall. Mhm. discours ses promesses de campagne mais aussi des réalisations qui étaient en perspective par rapport à, à ce à ce qu'il voulait véritablement faire. Mm-hmm. moom moo tax ma ne ma ne la tey fi ñu toll le véritable changement. waaw c'est le peuple qui doit le mener. moom moo tax tey. mais comment ñoom ñoo gëm changement. mais comment ñoo war nekk la majorité pour mën a changer pour mën a changer en réalité c'est le destin du continent africain y compris le Sénégal tey Sénégal nag problème boobu la ñu am. waaw ñu yeewu ñoo bëriwul général Afrique en général problème boobu la ñu am. Uh-huh. pour mën ne tey li nga xam ne moom mooy changer suñu dëkk yi. nekkul ci Abdallah lay jóge nekkul ci Ousmane lay jóge nekkul ci Massamba lay jóge nekkul ci Mademba lay jóge mais c'est une responsabilité collective mhm. cette responsabilité collective voudrait que qu'on arrive à éveiller la conscience d'une masse critique pour pouvoir euh, marcher vers vers vers qui serait le changement mhm. loolu moom moo tax tey ma gëm ni maanaam munut ñàkk nag munut ñàkk ñu am un homme idéal mhm. munut ñàkk ñu am un homme qui serait à la hauteur de tout ce changement mais tey baax nag ñu taxaw mën a xam ne tey même cet cet homme il aura besoin en réalité de la puissance populaire du peuple populaire maanaam mooy peuple bi ñoom ñooy taxaw gis nga dirigeant yi ñu am. mooy une révolution rek une révolution effectivement moo tax ma ne la gis nga dirigeant yi ñu am. Mhm. dañoo méngoo a peuple bi je te donne l' exemple de Thomas Sankara Thomas Sankara gis nga nit ñi mu nan lañ koy wax. Mhm. daan ko wax président Sankara de ko doon wax. camarade lañ ko doon wax. Mhm. camarade camarade camarade camarade rek waaw parce que moom moo jiite révolution bi. gis nga gis nga gis nga mooy. waaw maanaam mooy day am lu muy joxal. Mhm. gis nga ñi nga xam ne dañ leen a jiital. wala nga jiite leen. Mhm. ñooñu dañ leen di wet. ñooñu dañ leen di jox cër. ñooñu dañ leen di wormaal dañ leen di def comme sa bopp. gis nga tey képp koo yaakaar ni mënul mën képp ku deful comme sa bopp wet sopp la fonk la mënu laa kooku bu la gënee bu la ci di diggee changement en Afrique jarul gëm. Mhm. là ça moi qui te le dis gis nga en Afrique. Mhm. le pouvoir li ñu naan le pouvoir rend fou. ñoom ñëpp ils sont ils ont en fait dans leur tiroir là le livre de de le prince. ñoom mhm. ñëpp ils se considèrent comme des princes comme des gens qui sont importants or en réalité la véritable souveraineté appartient au peuple. tey moom moo tax ma ne la les gens ils ne sont pas dupes les gens ils sont capables de comprendre les véritables enjeux les véritables enjeux qui acculent le Sénégal. Mhm. loolu ñëpp dañ ko war a comprendre le jour où les une masse de Sénégalais comprendront en réalité ces véritables enjeux ils prendront leurs responsabilités pour nous pour pour se défaire de pour pour nous défaire pour pour changer véritablement en fait yii nii yëpp loolu moom moo tax ma ne la depuis depuis soixante ba tey depuis soixante ba tey. Mhm. système yi fi nekk. ils font tout pour maintenir les gens dans l'obscurantisme c'est-à-dire que ni tey boo xoolee boo xoolee tey Sénégal tey am nañ ay wéeruwaay yoo xam ne buñ ci toogoon rek taxaw barke alxuraanu karim corruption du am Sénégal. waaw mooy ci culture bi on a une bonne culture ak ak ak ak religion bi la culture et la religion. mais mais justement justement tey boo xoolee gis nga avant dañ naan la vie quand on parle de quand on on on on

bi mu ñëwee fekk muur yi dirigé euh, di di di jël ci euh, torodo waa waa euh, la révolu la la le royaume torodo di jël ci ñoom ay impôts yu bëri. Mm-hmm. am benn benn famille benn royauté boo xam ne moom moo amul ci dëkk bi. Mm-hmm. Thierno Souleymane Ban il s'est dit que ni ça devait ça ça ça doit s'arrêter. Mm-hmm. Thierno Souleymane Ban moo tax la révolution torodo doit être une référence en termes de changement. te loolu tey. doo dem ci benn école ñu jàngal la ko. duñ la ko jàngal gis nga Thierno Souleymane Ba. duñ mhm. defee la révolution Torodo ba pare. Mhm. maanaam ci gore nit ki rek laa lay wax. Mhm. gars yi dañ ne ko yow yaa ñu doy yow yaa war a nekk tey la le le le dirigeant en réalité du royaume Torodo Thierno Souleymane Ba daf ne leen man je je veux rester en réalité un digne combattant. Euh, du royaume torobe Thierno Souleymane Baal maanaam dafa jox royaume bi keneen moom géré ko ba pare jox leen ay indication jox leen ay termes référentiels pour qu'il puisse avoir un royaume démocratique moo tax bu ñuy wax tey en termes de démocratie mhm. boo jëlee Thierno Souleymane Baal doo juum je te donne l'exemple qu'il a donné bi muy jox nit ñi bi nit ñi nit ñi nit ñi nit ñi ay ay conseils mhm. le royaume tororo bi mu defee révolution ba pare mhm. tout simplement pour xeex jar rek dañuy wax pour xeex corruption. def na leen détrôner tout tout imam dont vous voyez la fortune s'accroître et confisquer l'ensemble de ses de, de biens combattez-le expulsez-le s'il s'entête et veillez bien à ce que l'imam ne soit pas transformé en une loyauté héréditaire où les seuls fils succèdent au père. Mm-hmm. yaa ngi koy dégg. Mm-hmm. kon corruption bi nga xam ne ñun dañ koy xeex. bu ko jëlee feneen. maanaam suñu dëkk la njëkk ñun ñàkkuñu référence ñàkkuñu ay référence quoi c'est que dañu am complexe tubaab yi rek di leen toppandoor te te toppandoor bu ñu leen di toppandoor sax ci lu bon rek toujours. gis nga tey gars yi dañ naan révolution révolution maanaam une révolution billahi wallahi elle doit être culturelle. Mhm. gis nga bu ñu la révolution culturelle ba pare dinañ gagné la révolution intellectuelle. ok kon maa ngi lay remercier bu baax a baax sa participation am na solo waaw merci. waaw ñu ngi bëggee bu baax a baax euh, suñu mbokk mu baax moom di Ousmane euh, Tanor Dieng vraiment analyse mi analyse yu pertinente la voilà bu ngeen gisee nag ñuy def lii yëpp c'est pour la bonne marche de notre cher pays qui la Sénégal bi nga xam ne dafa stagné depuis 1960 tubaab bi bàyyee ñu euh, réew mi dem mënuñoo fexe ba bouger au contraire dañuy rétrogradé maanaam dafay gën a dellu te loolu li ko waral mooy. ci choix bi la maanaam duñ tànn ay nit ñoo xamante ni ay nit ñu baax lañ xam nga il nous faut des hommes de valeur yoo xamante ni am na lu ñuy jomb am lu ñuy rus mais toujours tey Sénégal ñu bëri dañuy prétendre pour accéder au pouvoir bu ñu yégee lu ñu njëkk xalaat mooy ay détournement sàcc changer seen dund xam nga di romb nit ñi nga xam ne ñoo leen fal ñu nekk ci misère ñoom ñu leen di romb ak ay 4 x yu rafet di tabax ay kër xam nga di ñu leen di tuddee ay événement maanaam que ça soit ay soirée grand théâtre wala ay làmb ñu dem fa di battre di may xaalis xam nga loolu il faut que ça cesse Sénégal ñëpp dañoo war a tolloo au même pied d'égalité lu ñu bokk ñun ñëpp ñëpp am ci accès euh, maanaam boo feebaree soo demee hôpital nga faju te doo fay sax loolu mën na nekk parce que dëkk yu bari ñu ngi koy def ñu am ay école yu baax diñ de ce nom am ay tabax yu baax ay yoon yu baax di lekk ba suur di naan ba màndi dund gi denrée de première nécessité loolu tamit lu am solo la mu yomb liggéey am loolu mooy réew moo gën tey ñiy fal ay nit ñoo xamante ni à chaque fois dañuy ñëw enrichiru ci nguur gi ba pare enrichir ñi ànd ak ñoom seen ay xarit seen ay jabar seen ay doom sénégalais lambda bi moom toujours moom mooy nekk dans la misère loolu nag il faut que ça ses te loolu lu tax lu koy dindi tey mooy il faut qu'on soit conscient peuple bi rawatina jeunesse bi nañ yeewu nañ yeewu waa ji ñëw na fi 2012 ba 2007 nax nañu ànd ak ay xaritam façon scandale bu nekk am na fi te mujjul fenn mu foqar ñi élection yi gagné ko par force au premier tour en 2019 gis ngeen élection yi c'est catastrophique nu ko organiser dafa jaay doole nit ñi gagné au premier tour te loolu daf ko prémédité te ñu gaay mi ñu ngi ko doon wax à chaque fois Boun Abdallah Dionne taxaw na fi ne ñoom ils ils vont gagner au premier tour taxaw na fi ne cinq candidats mooy am ñu teg seen parrainage écarté ñu leen neex loolu nag il faut que ça il faut que ça cesse ñun nañ am fulaak fayda te xam ne réew mi Macky Sall moomu ko ñi mu àndal moomuñ ko le Sénégal appartient à tous les Sénégalais képp koo xamante ni nationalité sénégalaise nga am tu sénégalais da am droit ci réew ma mais duñ bàyyee réew mi une bande d'association de malfaiteurs ñuy succédé wante di sàcc xaalis sénégalais yi sénégalais yi sonn bu ñu feebaree duñ mën a faju di dee ci hôpital yi ndax insuffisance rénale di dee ci hôpitaux yi ndax cancer te ñoom bu ñu feebaree pendant ce temps bu ñu feebaree ñu ngi dem euh, à l'étranger di faju foofu ñoom ak seen njaboot seen doom yi sax bu ñuy bu ñu amee bac wala duñ xaar sax bac BFEM la ñuy am ñu yóbbu leen France wala ñu yóbbu leen États-Unis ñu dem àggali seen jàng am ay diplômes yu baax a baax a baax bu ñuy dem jëm leen a insérer waat ñu continuer di ñu jiite waat avec ce même système te loolu nag ñu ñoo ko mën a xeex. donc je vais du côté des États-Unis pour prendre euh, Yaay Astou Diop Yaay Astou Diop maa ngi lay nuyu. waaw waaw maa ngi nuyu maa ngi nuyu maa ngi leen di dégg bu baax a baax di kontaan ci intervention maam seen ak euh, kii fi jógee léegi. OTD Ousmane Tanor Dieng. mu ne mu bi. Ousmane Tanor Dieng. Euh, euh, waaw. rek nañ parce que tur boobu moom sànn sànn ne kii wu ñu daal. non mais grawul comme génn na daal yaay fàttu nañ ko wormaal rek amul problème. donc bu dañ mhm. ko abrégé rek. non mais comme génn na àdduna ko wormaal rek yàlla baax na. formidable ay analyse am am na solo trop trop trop moo gën a incité ma bëgg a dëgg la parce que dafa am ay points yoo xam ne daf ko wax nga posé ko ci question Mm-hmm. te man dama ci def sama sondage moo waxee tey laay doog rey bis ni ki tey laa départ Sénégal. dëgg la def une semaine fii ma nekk. donc euh, li ma def mooy parce que dëkk su fekkente ni sa dëkk la. Mm-hmm. nekk adulte. Mm-hmm. magum cëmm ba pare nekk patriote war nga xool xalaatu dëkk ba waa dëkk ba lan la ñuy xalaat. te man loolu liggéey naa ci ba am ci lu xam ne tey naa ko ci sama loxo. comme nag daf ma jaral ma liggéey Mm-hmm. bi ma demee Sénégal ba tey ci sama loxo. Mm-hmm. léegi man liveur yi lay waxal. Uh-huh. waa diaspora lay wax. <coughs> parce que dafa am côté boo xam ne ces diaspora moo ko mën a liggéey ki nekk ci biir Sénégal mënu ko liggéey. ban côté la. très bien maa ngi ñëw. waaw te lii may wax ni kulluk yaa ngi kullul ku nekk diaspora. kullu ku nekk diaspora. Uh-huh. Mm-hmm. te nga mën a live te nga yore portable te xam ngeen ni un liveur wala. ku nekk diaspora di dem Sénégal portable bu baax yo- ngay am mm-hmm. crédit yomb na léegi boo demee puce free ngay wuti mm-hmm. avec six mille francs tu en as pour trente jours da nga am connexion am lépp mm-hmm. man bi ma demee testé naa sondage pas mal de place pas mal de place et différentes places laaj na aska wi ci différentes places ak heure bu ne heure bu ma ne Mm-hmm. mais ñi ma posé question ñëpp ànduñu ak état bi dox Sénégal loolu dafa doy dañoo foqar ñi eh, kii bi élection yi dañ ko nangu ci sénégalais yi mais ñoom gagné wuñ ko sénégalais yi la plupart des sénégalais ils sont pas avec Macky Sall Macky dafa gagné élection yi par force. loolu dafa leer xam nga lan moo ma gën a leer ba sama xel dal dama bëgg askan wi yëg ko. mooy mm-hmm. nekk Sénégal gi ma déglu yëg ko. Mm-hmm. mooy amul benn sénégalais bu ànd ak pouvoir actuel. non non. loolu kañ xam nañ ko depuis Marème Faye Marème Faye Sall nga xam ne c'est l'épouse du président de la République taxaw na wax ko fi waaw. du Sénégalais bi toog booru gi. Mhm. du ki toog ci taatu garab gi. Mhm. amul kenn kenn kenn kenn ku ak Macky Sall. mais Marème Faye wax na ko ci élection yi passé ci campagne bi nee na man fépp fu ma dem dañ naan ñoom en 2012 dañoo voté pour Macky Sall mais instant bi dañuy frustré Marème Faye kañ moo toog di ko wax nii devant tout le monde ni ñi di ko seetaan ci réseaux sociaux yi. Mhm. c'est-à-dire bu ma amee soxla fenn di ko doxee damay taal sama connexion. waaw di filmer ñu ngi la doon sama connexion. Mhm. je demande parce que man américain yi noonu lañ koy defee dafay laaj nit ki xalaatam laaj ko idéem laaj ko fan la nan la gisee dëkk bi. dëgg la. c' est en fonction de ça man sama moral moralement man loolu man man man man parce que kenn ku ne da nga porté xeex. Mhm. à ta façon. mais man dama porté xeex bi ba yegg Sénégal. sama moral dafa yéeg. laaj doomu aadama yi comme man dégg nañu olof ma dégg olof. Mhm. te man awma problème mu man man dama am facile communication. da nga am verbe facile quoi. voilà. Mhm. Mm-hmm. donc su ma filmé woon lépp du baax. dëgg la. laajaale mhm. askan wi filmer ko wala nga vidéo ko askan bi ba pare waxaale leen ressources yi ñu am parce que xam nga sensibilisation boobu noon ngay wax ak conscientisation bi sa demande des moyens te du ñëpp am moyens yooyu xanaa comme ñi nga xam ne dañoo nekk dans la diaspora ñi nga xam ne Fuuta lañ dëkk ñii dëkk Kaolack ñii dëkk Kédougou ku si nekk rek si zone bi nga dëkkee boo demee mu def comme yow ni nga doon def bi nga demee Sénégal. di mm-hmm. xas ba jógee à Europe wala mu joge Amérique wala mu jógee Belgique wala mu jógee Suisse mais am na six mille francs yu mu jëndee crédit c'est pas cher. am na portable bu baax tamit. <laughs> exactement am na portable bu baax mieux que ñi Sénégal sax ay iPhone la ñu am moom ñi nekk Sénégal man gis naa ne ay iPhone la mais ñi nga xam ne ñoo jógee Europe moom dañu yore cash money cash. Mm-hmm. carte. boo egsee jënd sa prix su free wax nga avancé jëndal sa prix su free. <laughs> Tigo. Uh-huh. ex-Tigo sama xeex dama koy protéger lépp. Mm-hmm. man sama xeex. Uh-huh. mu américain bi ni mu koy defee laa koy defee man su ma nee lii laa gëm lii laa gëm. non mais yow Free yow Free bi ngay bi ngay favoriser non timide c'est un français ah mooy Javier euh, Niel. Javier Niel waaw. man par exemple je préfère un américain tey ñëw Sénégal mi jox ko marché tali boobu tali boobu dinañu ko defaral defar bu correct. Mm-hmm. xam nga ni su tegulee affaire bi ci yoon man américaine man man maa koy porter plainte. Mhm. au niveau du Sénégal. au niveau du Sénégal uh-huh. parce que loi Amérique bi nu américaine. da nga faa yàgg waaw nationalité nga yore waaw. ci affaire tali man dañ koy bàyyi ba mu defar ba pare ñu yóbbu ko porter ko fii au mhm. niveau des États-Unis. da mhm. du ma ko. te loi bi fii xam nañ ñu doxee de moo tax man marché waa léegi lan moo tax ñuy jël marché yi di ko jox américains yi ak euh, yeneen dëkk yi pourquoi pas ñun li nga xamante ni am nañ ko tey jii main d'œuvre locale bi ñu ñu waaw waaw. par exemple tey soo joxee un américain tali mu indi moyen moom dafay war a recruter ay ak sénégalais ñu bokk liggéey liggéey. mais on a des entreprises sénégalaises comme ay euh, CSE e. ay Jean Lefebvre. waaw kon kañ loolu du ci entreprise yi mais ci ci nguur gi la parce que entreprise yi ñoom ils sont obligés de prendre des marchands. ñëw na moo defar tali nga xamee ni moo jóge ci beneen bi di jëm Malika defar bu na bon na bon na bon am ko doolee sa oto day naaw soo wàññiwul sa mooy VDN prolongé bi. léegi noo gisee affaire Pape Alé Niang bi. voilà balaa ñu koy egsi ci waaw. surtout wax ju jaar yoon waaw. seen ay wax tegu na. temps boo demee vacances ñaa ngi fa di wax te kenn jàppu leen ah donc ku nekk am nga droit wax parce que nous sommes dans un pays de démocratie aussi nit ñaa fa di def ay live ah nit fa def ay émission tamit. dañoo wax ne dañu bëgg a xeex. waaw te sur le terrain ñi nekk à l'extérieur dañuy wàccaloo tout tout le temps nit ñi sur le terrain mais su ñoom laa wax ku wàcc sur le terrain. Mm-hmm. jërëjëf yaa si Diop. Mm-hmm. Mm-hmm. nit mm-hmm. mën na ko def Kaolack. nit mën na ko yee nit ñi fekk groupement nga toog par exemple mool yi man je suis Saint-Louis man sama yaram semaine bi may ñëw moo dem saint sa mool ya wax leen pétrole bi a gaz bi ñu am nee nañu yéen ay lay sant licence képp ngeen di xeex. surtout Guet Ndar ah. li ëpp doole licence bi ngi nii mooy. ma ne surtout waa Guet Ndar samay maam rek a fa nekk ak samay mbokk. ku dem daal na nga ci terrain bi def ay live ma ne ku dem na nga wàcc ci terrain bi def ay live pour conscientiser le peuple. Ah, même bu fekkente ni yow tu fais un mois bàyyil deux semaines yu yi jàpp fekk live moom duñ si jàpp kenn. si jàpp kenn parce que ni ku nekk am nga droit wax sa xalaat ci sa rew ni muy demee. non jarul ragal

léegi ñu jeexalee euh, ci problème mu Pape Alé après ñu tëj parce que vraiment live mu ngi bëgg a gudd loo loo loo xalaat ci affaire Pape Alé Niang. non li xalaat ci Pape Alé rek mooy wax naa ko sànq. Uh-huh. parce que nit ki tey jii ñoom kenn mënu leen setal ci accident mooy numéro un kenn leen ci setal. Ah, lu tax nga wax lool. non Pape Alé Niang moom moo dawal ba mbëkk oto bi moom moo dawal ba mbëkk oto bi waaw ah bon ah ah yow côté mystique ngay waxee quoi yow si côté mystique ngay waxe côté mystique mën na nekk côté mystique. Mhm. ba bind ci livre scandale au cœur de la république. voilà voilà. kon hmm. kooku tey jii a jaar daal yow ci côté mystique bi nga ko yóbbu quoi jàpp na daal dañ ko xaptal mu mbëkk mu def accident pour ñu mën ko coller motif jàpp ko. côté mystique muy benn man dëkk boobu laa jógee déggoo ma la ñuy def ko ci fekk yaa ngi téeméeri ndox boog juróom-ñetti bopp. mais yaay Fatou yow ni nga yàggee États-Unis ba pare ngay gëm affaire yooyu noonu affaire yu mystique yooyu. waaw. kon dëkk bu nekk dafa am ay réalité am nga bëgg wax quoi. aha kon daal da nga jàpp ne Pape Pape Alé Niang da nga jàpp ne Pape Alé Niang est un mystiquement quoi. mais yaay faatu loolu yomb na de. mais analyse boobu xawul yomb tuuti yaay faatu Diop. waaw. ah ah da nga ko da nga ko ciy laaxaale ne mën na nekk daal doo ko exclure quoi. <laughs> ok. c'est de mystique un gouvernement de saafara. <laughs> bu ñu gisee naa saafara déggoo ma ah ah. Ah, kon de ñun yàlla ñu si yàlla musal kon ñun. ah kon xuloo bi am ci entre les activistes sax mën naa am gars yi ñoo leen ñoo leen xabtal quoi. kon waa ji il est fort mystiquement quoi Macky Sall. ah. mais mais yaa dafa am benn dafa am benn waay bu ma gis ci internet bu am xorom quoi nee na. Macky Sall sëriñam yi dañ kaa wax ne ko bul tudd Sonko Ousmane Sonko boo ko tuddee juróom-ñaari yoon nag da ngay yàqu <laughs> moo tax du tudd Sonko quoi <laughs> daf koy ignorer toujours. <laughs> ah. ah ok. waaw kon maa ngi lay bàyyi xam na à la fin boo ok kon kon jërëjëf ñu lay jaajëfal bu baax ma ne kontaan naa ci participation bi jërëjëf. waaw. <laughs> merci beaucoup. merci beaucoup yaa Asou Diop ak ñi nga xam ne ñoo jot a dugg yëpp ci live bi ñu leen di béggee bu baax a baax di kontaan ci yéen. en commençant par Mam Sen euh, ak euh, Ousmane Tanor Dieng OTD ak euh, Yaa Asou Diop depuis les États-Unis donc affaire bi mu ngi nii rek soo gisee ñun ñuy def live di sonn di wax lép bëgg réew mi la rek am na ñoo xamante ni ñu ngi nekk Europe am ñoo xam ne ñu ngi nekk États-Unis am ñu nekk partout dans le monde ay Brésil fu ne gars dañu fay nekk di live di wax ci Sénégal te pourtant condition de vie yu nekk foofu vraiment macha allah gars yi bu ñu feebaree ñu ngi faju ñu ngi liggéey di am xaalis. xam nga am cadre de vie bu baax a baax a baax xam nga suñu nekkatoon ay patriote dañuy ñëw rek ñoom toog noppi mais voilà man je bien Sénégal ñoom suñu feebaree duñ faju wala bu ñu lekkul naanuñ man je m'en fous sama yoon nekku si mais bu ñuy jóg di wax duñ ko tey parce que deretu patri patriotisme bi moo leen di jàpp ba bu ñuy wax duñ ko tey te ku nekk boo sañoon sa réew mooy gën a développé mooy jël paix ci réew yëpp xam nga mooy nekk premier ba nga xamante ni doo am soxla sax di dem ci réew tubaab yi ñu lay sonal xam nga di la taxé de tous les noms boo sañoon tamit vraiment doo am benn mbokk boo xam ne day dugg gaal pour bëgg a ñëw Europe wala dara parce que soo gisee xale yi di dugg gaal di ñëw Europe xam nga wala di def le tout di dajalee xaalis di fay ay nit ñu leen di escroquer ci ay visa mooy ne le Sénégal va mal Sénégal moo doxul mais loolu doo ko gis mukk ci pays bu développé tu vas jamais aller en France wala en Allemagne waa Espagne nga gis benn xale allemand wala xale espagnol wala français wala italien wala un américain dem Afrique jaral ko muy dugg gaal wala muy fay xaalis pour dem ñoom sax seen passeport yi ñoo gën a puissance suñu yës <laughs> waaw donc ni réew yi développé puissance bi réew mi ni muy puissant yee noonu lay seen lépp di puissant yi même seen passeport sax fu mu mën a dem yow africain bi sa passeport mënu faa dem te pourtant ñooñu ay nit lañ donc dañoo liggéey ba àgg foofu noonu donte loolu sax discrimination la te c'est injuste loolu dafa injuste injustice la mais nag africains yi lépp loo leen teg rek ñoom toujours dañ koy nangu seen président yi ak euh, nos élites ñoom li leen intéressé toujours rek mooy accéder au pouvoir nax nit ñi ba yéeg soo yéegee nag après voilà nga enrichir sa bopp enrichir say xarit te Sénégal comme ni ma koy waxee saa su nekk Sénégal dafa am ñoo xam ne ñoo ko téye en otage dafa am ay lobby yoo xam ne ñoo téye Sénégal en notage ba tey booy wax waxu changement système ñoom duñ ci mës a ànd communicateur traditionnel ak ñenn ci sëriñ yi du wax ñëpp de man je vais pas mettre tout le monde dans le même sac ak ñenn ci mbër yi ñenn ci anciens footballeurs yi ak ñenn ci musiciens yi koo ci gis rek Macky Sall la faral parce que dafay toog. su fekkee ci côté sëriñ yi la dinañ créer benn événement waxuma nag gàmm yi nga xam ne mooy gàmmu traditionnel yi ak màggal yeeg yooyu moom tradition la loolu kenn waxu ci dara mais ci biir année bi luy am ci ay gàmmu gàmmu ay conférence ak ay màggal yoo xam dañuy dem tuddee ko ministres yi ñu indil leen enveloppe tuddee ko première dame mu yónnee enveloppe ak liy am ci ay làmb yu ñuy tuddee première dame ak ñuy tuddee ñoom Matar Ba ak ay ñoom Amadou Ba ñu jël xaalu Sénégal dem di battre am na ñoo xam ne ci système boobu la ñuy dund mooy ñi ma leen doon wax communicateur traditionnel bi nga xamante ni moom amul métier amul dara lu muy def mooy ñëw toog diw sa maama baax yaa fi defoon lii doo moroomu diw diw nii diw naa acca ñu génnee xaalis jox la léeg-léeg ñu tabaxal la kër affaire bi dafa féetee boor maanaam il faut nga nekk ni koo xam ne yow da ngay dem bokk ji ci ñoom pour mën a dund te système boobu il est mauvais système bu bon la tey jii da ngay gis euh, li ma doon wax ci mbëri tey promoteurs yi ñu ci bëri dañuy tëgg tuddee drapeau diw drapeau ministre diw drapeau député naaw wala sargal Matar Ba sargal Amadou Ba sargal Macky Sall loolu ku koy def rek yaa ngi ciy séntu xaalis xaalis bi fan lay jógee xaalis sénégalais yi la du seen salaire la ñuy jël di ko yóbbu foofu xaalis sénégalais yi la kon sénégalais bi nga xamante ni moom nekkul promoteur sénégalais bi nga xamante ni moom nekkul mbër sénégalais bi nga xam ne du communicateur traditionnel sénégalais bi nga xamante ni du transhumant politicien transhumant moom du jot wàllam mukk moom moom kañ lay jot wàllam moo tax nag il fallait organiser système bi ba kenn ku nekk fi nga nekk li nga moom nga jot ci le minimum mooy boo feebaree soo demee hôpital ñu assister la urgence mais dëkk boo xamante ni yow da dem urgence di saigner sa deret ji di tuuru am hémorragie et après ñu ne la demal pharmacie ki nga àndal ñu wax dawal dem pharmacie nga jënd ay gants amuñ gants hôpital boo xam ne kenn du ko dote ay gants hôpital bu ñu dul doté ay gants kooku moom mbaa dina am leneen ak naan soo joxewul xaalis duñ la laal ba nga dee gis nañ fi benn waaye bu génn bu ñuy tuddee Assane jumeau yam nu benn oto militaire moo ko mbëkk bi ko oto militaire bi mbëkkee ñu sapeur ñëw côté Kër Massar la ko mbëkkee sapeur ñëw duggoo ko ci oto bi di wër hôpital yi hôpital bu ñu dem ñu ne fees na duñ ko jël et puis nan la ñuy gisee nit koo xamante nii dafa soxla assistance urgence laa la wax urgence la war a dem ñu ne la yow duñu la laal parce que fii amul place ngay dem ci ay clinique ñu ne la jox ñu un million parce que les cliniques sont privées clinique c'est privé tey jii yow sa réew bu la mënta faj tey nga feebar wala nga accidenté mënuñu laa faj ba nga dee kon ñooñ lan lañ la mën a laa lay lan lañ la mënal koo xam ne mënta assurer yow sa santé ak sa éducation kooku kon lan moo tax ñu lay fal te ñoom ñu nekk ci jàmm ñoom duñ subir loolu mukk waxoon naa leen sànq na leen ñoom ku ci feebar doo fajoo Sénégal seen médecin yi nekkuñu Sénégal seen médecin yaa ngi France ñu ngi États-Unis ñoom ñëpp ah, ak entité yu ma leen tuddal yëpp muy ñenn ci sëriñ yeeg ñenn ci ñu ma leen tuddal ak ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ku ci nekk tey jii boo feebaree doo fajoo foofu noonu Sénégal ci biti ngay dem loolu dafa doy waar réew mi dañ kaa jël def ko gato am mu féetee boor am ñoo xamante ñoom ñoo def partage du gato ñoom ñooy séddoo gato bi mais ñun suñ classe gi ñun ñun moom tekkiwuñ dara ñun ñooy nekk dans la misère ñooy nekk dans la merde ak suñ njaboot ba xëy dee ku amul mbokk bu bokk ci gouvernement bi wala nga nekk ni koo xamante ni ku ñàkk jom nga dem di leen tarbiyu di nangoo nekk seen suq wala nga nekk bokk ci créer benn mouvement fexe ba dem seeyal ko doo jot sa wàll ci réew mi te loolu c'est grave c'est catastrophique réew kenn du ko séddoo te loolu moo am Sénégal yow imaginer sànq li ma doon wax ci affaire yi promoteurs yi ak mbëri am na Eumeu Sène élection yi passé Thierno Alassane Sall xaw ma non ministre de l'environnement foog naa fàtte naa sax turam moo nekkoon ARTP kooku la àndal te du ànd ak moom gratuitement Modou Lo dem ànd ak Amadou Ba Balla Gaye dem ànd ak euh, Kële nu mu tuddati euh, alin Sall pétrole te pourtant ñooñu ñoo gën a fës ci làmb ji ñooñu galéré nañ galère yoo xamante ni avant ñuy accéder tey jii bay am yenn cachet yi tey ah dañoo galéré xam nañ lu ci galère mais bu ñu demee ba seen affaire baax ñoom dañuy dem ànd ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy lay sàcc. les voleurs de la république collaborer ak ñoom promoteur yi bu ñu ñëwee tëggee tuddee leen làmb ñu jël xaalisu réew mi fayee leen ko bu élection jotee benn ministre jël leen dugal leen seen kanam oto pour influencer nit ñi pour mën a am ay vote wan leen ne leen comme ànd naa ak Balla Gaye te xale yi bëgg nañ Balla Gaye xale yi bu ñu gisee Balla Gaye dañ naan ball Gaye moo baax da dañ naan euh, Alioune Sall moo baax parce que mu ñu ànd ak Balla Gaye bu ñu gisee Eumeu Sène ànd ak Thierno Alassane boobu noonu may wax dan fàtte naa sax turam mooy ministre de l'environnement ñu ne kii mooy ku baax ki bu gisee Modou Lo ànd ak Amadou Ba ñu ne kii mooy ku baax ki loolu moo graaw ci Sénégal système bi moo bon nëpp te gis nga pauvreté moo gën a bon moo gën a bon gis nga agression yi dellu siwaat Sénégal nii pauvreté bi daf cee bokk gis nga nit bu ñàkkee am na ñoo xam ne tous les moyens sont bon pour ñu mën a lekk parce que am na ñoo xamante ni mën naa am bu ñu agressé nit sax dafay fekk ne dañoo bëgg lekk te mënuñoo lekk wala ñu ut liggéey ba sonn mënuñoo am liggéey parce que amuñ benn mbokk boo xam ne mu ngi ci nguur gi ñu am branlon mu mën leen a jàppale pour ñu mën a am xëy loolu yëpp mu ngi ci pauvreté baaxul dafay indi banditisme dafay indi aigri day tax nit ki dafay iñaan nit dana pauvre ba benn moment boo xam ne sax da ngay foog ne nit ki dafa dafa soxor fekk sax moom de nature melul noonu mais dafa ñàkk ba bu gisee nit am dara sax wala nit rombu ko ak oto bu rafet xam nga surtout bu nekkee comme politiciens yi nga xam dañ kaa seen doom dañuy mer te parfait ils ont parfaitement raison wax nañ dëgg dafa am yoo xamante nii dafa métti tey jii bu ngeen gisee phénomène yu xew léegi nii tey comme ay ay nit tëb naan ay yonent laa xam nga gannaaw bu ñuy rombee Seda Zaman tey yéen a ngi gis am na beneen waaye boo xamante ni génnati na tëngéej journaliste yi taale ko micro mu ne moom tamit c'est un prophète ba paree di jooy parce que dafa jàpp ne moom bu ootee rek dina am ay nit ñu ñëw uyu ko mu mën a am xaalis loolu yëpp pauvreté moom moo koy waral moo tax tey luñ te xeex te combattruñ pauvreté xeexuñ dara te pauvreté bi ni ñu koy xeexee mooy ñi nga xamante nii ñoom la ñuy fal ñu ñuy appauvrir après ñu yeewu bës bu ñuy falati bu ñuy dema ci élection ñu tànn ay nit ñu baax ay référence Sénégal am na ay nit ñu baax ñoo xam ne ñemewuñ sax duggu ci politique bi ndax salte gim salte politique bi dafa salte salte tellement am na ay nit ñu baax ñoo xamante ni bëgguñ see sax duggu parce que dañuy wax ne politiciens ils sont pare ñoom ñëpp ay euh, ay ay ay sàcc lañ ay fenkat lañ loolu rek lañ leen lañ leen di wax donc kon système bi dafa yàqu benn yàqu boo xamante nii il faut ñun sénégalais ñoo mën a jóg pour xeexal ko suñu bopp combattre ko suñu bopp téye ko à mais surtout la jeunesse nañ yeew képp koo xam ne mën nga conscientiser ay nit pour nit ñi yeew nga def ko parce que tamit dafa nax dafa naqari ay nit di la jiite di sàcc sa alal chaque jour yow chaque jour yow sa bakkan mu ngi ci xottu gerte chaque jour man nga dee parce que nit mën na dox ba mu yàgg mu accidenté nit mën na dox ba mu yàgg mu am AVC daanu mën na am malaise daanu te boo demee hôpital assistance bi du baax te loolu c'est le minimum feebar faju xiif lekk loolu mooy réew te malheureusement loolu amuñ ko ci Sénégal kon encore une fois ñu ngi fàttaliku Guy Marius Sagna parce que il a été emprisonné arbitrairement arbitrairement jaay nañ ko doole tëj nañ ko te xeex bu mu doon xeex du moom kenn rek moo tax waaye dafa bëgg Sénégal rek gis na ne Macky Sall mu ngi teg Sénégal yi loo xamante ni jaaduwul mooy jël prix électricité bi yokk ko te tegu ko fenn xam nga te war a train de vie de l'État waxoon na ko mais respecté wu ko parce que rationalisation train de vie de l'État fan lay commencé mooy ci huit milliards am yi ak ci conseil économique et social environnemental ak au conseil des collectivités territoriales ça ne sert ça à rien ñi fa nekk ñu ngi leen di fay di leen jëndal essence di leen jëndal ay oto boo demee sax jox nañ leen ay indemnité xaalis boobu yëpp bu ñu ko dajalee woon def ko ci Senelec Senelec baax sénégalais yi lu ñuy fay si courant sax du cher boobaa waaye nag ñoom nañoo nekk di dund paradis ñu ñu dund enfer loolu nag il faut que ça cesse te Guy Marius Sagna loolu la doon xeex te gis naa ne am na si sénégalais yu bëri ñu ngi koy seetaan te loolu c'est anormal loolu c'est pas du tout normal Guy Marius Sagna sénégalais yëpp ñëpp war a jóg jàppale ko mu génn ci kaso gi parce que li gën a graaw ci réew mooy justice boo xamante ni jaarul yoon parce que su boobaa ñi gën a néew doole ñoom la ñuy jël jàpp leen làq leen jant bi saay-saay yi góor jigéen yi band yi ñu jël leen privilège leen te loolu lu jar a xeex la lu jar a xeex la te ñu ñoo ko mën a xeex waaw kon ñu leen di jox rendez-vous beneen yoon incha allah di remercier ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñu doon bàyyi xel di leen bëggee di kontaan ci yéen bu baax a baax Merci beaucoup à toutes